Assalamualaikum mbokk yi seen mbokk seen surga malik diop ak eh, centre yaakaar ju sax kon niñ koy faral di defee suñu ay émission suñu yaakaar ñëw nañu tey ngir digtal leen émission bu bees si suñu yaakaar kon dañuy sant yàlla bu baax mi nga xamante ni moo may ñu ñëw teew fi tey ngir indi leen émission bu bees suñu yaakaar niñ koy faral di defee dañuy indi ay jàngale jàngaleb yonent yàlla insa niki ay taalibeem eh, li nga xamante ni mooy xew-xewu jamono ñu jéem a xool li nga xamante ni moom la ci insa jàngale ak niki ay taalibeem naka la ñu def bu ñu yenn situation yi dabee kon tey dañuy waxtaanee eh, laabir wala baax maanaam niñ ko mën a waxee nañu baax si ñëpp dañu war a baax si ñëpp dañoo bàyyi xel si nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di gis bés bu nekk ñu nekk si ay jafe-jafe dañ leen war wan mbaax ak mbëggeel waaye ni ki ay taalibe insa ni ma ko waxee woon léegi rek ni nga xamante ni noonu la ko insa woon si linjil si téereb luk mu ni ay taalibeem waaye yéen sopp leen seeni noon te di defal lu baax tey leble baña xaar ñu delu leen ko noonu seen yool dina mat kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu insa wax waaye tamit mu tax tegaat si ne ndaxte yàlla dafay wane mbaaxam ñi nga xamante dañoo baax ak ñi nga xam dañoo bon maanaam nit ñi nga xam dañoo déggal yàlla ak ñi ko di yépp yàlla dafay wane mbaaxam si ñoom li mu bëgg wax mooy yàlla mu ngi tawal si nit ñëpp tawam mu ngi sotteeku ci nit ñëpp mbaaxam ngelaw nooyi wér mu ngi koy jox nit ñëpp ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñi ko wedd ak ñi ko weddiwul nit ki nga xamante ni xëy na tey mën na wax ni am na ci ay nit yoo xamante ni wax nañ ni yàlla amul ñu ngi wax ni yàlla amul waaye même nit ñooñu sax yàlla mu ngi leen di wan mbëggeelam mu ngi leen di wan mbaaxam kon ñun ñi nga xamante ni ay taalibe lañu ay taalibe fas yéene topp ci eesa ak njàngaleem ni mu ko waxee woon mu ni su fekkee ne ay taalibeem lañu dëgg-dëgg dinañu jëfee li nga xamante ni moom moom la ñu jàngal li nga xamante ni moom moom la doon jëfee kon dafa am solo ni ki ay taalibe waaye li ma bëgg waxtaanee rek li ma bën a bëgg xóotal ci waxtaan wi mooy que ne maanaam suñu xam yàlla ni ñu koy fay di waxee suñu diine diine maanaam xam yàlla warul yem rekk si li nga xam ne dañ koy xëy na wane walla dañ koy faral di wax waaye diine bu dëgg bi xam yàlla bu dëgg bi moonaam mooy dañu war a fexe wut yàlla si anam yépp suñu dund yàlla fës si maanaam yàlla jiitu si xam yàlla li si jiitu mooy am mbëggeel c'est-à-dire dafay wane suñu xam yàlla suñu mbëggeel ñu wan ko nit ñëpp amul xaj ak seen ni ñu koy faral di waxee amul euh, kii ñoo bokk xeet amul kële ñoo bokk euh, réew amul kële ñoo nuroo deru yaram amul sax ñoo bokk diine ndaxte yàlla xàjjalewul ci mbëggeelam ñëpp ñoo tolloo chance ci mbëggeelu yàlla kon dafa am solo bu baax ñu bàyyi xel ci li nga xamante ni moom la insa jàngale mu ni waaye yéen maanaam ay taalibeem ñi nga xam ne ay taalibeem lañu ñun ay taalibeem sopp leen seeni noon di leen defal lu baax kon ñun ki taalibe insa lu baax rek la nga xamante ni moom lañu insa digal ñu def ko ndaxte moom si loolu la doon yëngu li nga xamante ni moom mooy maanaam li yàlla bëgg si dundu kenn ku nekk maanaam gyal. yàlla si dundu kenn ku nekk si ñun si ay aji gëm mooy kenente ni mu jiite suñu dund si domaine yépp anam yépp si suñu dund yàlla euh, manam contrôler ko yalla nek nga xamanteni mom mo koy yor ci loxom lool la yalla bëgg mu jité suñu dundu te suñu jëfin dafay nuroo ak ay jëfinam su fekkee ne moom moo jiite suñu dund su fekkee ne moom moo fees dell si suñu si suñu dund boo bu ñuy dund su ma yeewoo walla boo yeewoo benn bés wala bés bu nekk wala bés bi nga yeewu li ñu war a soxal li la war a soxal li ma war a soxal mooy déglu kàddu yàlla li nga xamante ni moom la yàlla bëgg maanaam mooy coobar ak yàlla ci suñu dund mooy wane mbëggeel bëgg nit ñi nga xamante ni moom maanaam ñooñu la ñuy gis bés bu nekk jënd di bëgg nit ñi nga xam ne léeg-léeg mën nañ nekk suñu mbokk ku ñu bokkal kër léeg-léeg mën nañ nekk suñu dëkkandoo ku ñu bokkal quartier mën na nekk sax koo xamante ni ñun ñooy bokk liggéeyandoo li ñu war def mooy bis bu nekk ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu mën a bëgg nit ñooñu ñu mën a am bëggeel si nit ñooñu niki ay taalibe ñi nga xamante ne dañ ñu xam dañoo war a gis mbëggeelu yàlla si suñu dund dañoo war a gis mbëggeelu yàlla si suñu dund eh, bu ñu fàttalikoo si njàngaleb insa si téereb luk eh, si injil bi waxoon na benn nettali doon wax euh, waajoo xam ne dafa jóge woon Yerusalem jëm Jéricho mu ne ay dew defkat lu bon maanaam ay agresseur dogale ko dóor ko ba muy bëgg dee ba sax xëy na ñenn ñi bu ñu gisee yaakaar ni dee na ñu dem bàyyi ko fa bu njëkk am benn boroom xam-xam walla benn nitu diine bu fa jaar gis waaje waaye dafa teggi gannaaw loolu am keneen ki nga xamante ni itamit jaaraat na fa nekkoon moom itamit kilifa diine bi mu gisee waaje moom itamit dafa yàkkamti woon nekk si ay yitteem ay soxloom mu gis waaje daal di teggi waaye amoon na beneen nit ku ko gis te am yërmande si moom am yërmande si jooju ba tax mu bàyyi lépp li mu doon def dafa waroon tukki waaye dafa bàyyi lépp li mu doon def ñëw wan waa jooju yërmande kon li ma bëgg wax mooy mbëggeel yiw wa koy lal day am yërmande am maanaam jëf dañuy jëf ki bëgg dafay jëf waaye day doon lu dëggu ci moom te mu ànd ak doole du am calcul maanaam naka lañuy ñuy jëfee su fekkente ni euh, gis nañu nit ñi nga xamante ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe dëgg la fii si réew mi senegal dinañu gis léeg-léegi nit bu ñëw si yow jooytu la ay soxla yoo xamante ni du dëgg dafa xalaat ne su ma waxee nettalee nettali bi nit ñi dinañ ma yërëm te mu nettali nettali boobu ngir am yërmande nit ñi maanaam dox ci kaw nit ñi nax leen ba am li nga xamante ni moom la bëgg loolu dafay faral di am waaye ñun dañu war a xool ci kaw loolu waruñu yemale suñu ay bët rekk si nax yi ñu nax yi di nit ñi di nax nañu bàyyi xel ci lenn mbëggeel yërmande laabiir defal nit ñi lu baax ci yàlla la jóge yàlla dafa waxoon yont yàlla Muusa si digle ak tere yi nga xamante ni moom la yàlla njëkk wàcce mu ñu koy wax fukki digle yi yàlla njëkk wàcce jox ko yonent yàlla Moussa dafa si joxe woon ñaar yi nga xamante ni Insa dafa xoon ni ñaar yooyu ñoo si gën a rëy te ñoom ñoo nuroo yàlla dafa ni woon xeet wi na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa xel bépp ak sa kàttan bépp mu teg si na nga bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp dafa am solo loolu Insa doon bëgg génne si bi muy tontu nit ñi ko laajoon si kan mooy sama moroom kan lañu ñu war a dimbale kon ki ñu war a dimbale amul xàjj ak seen képp kuy nit képp kuy nit di mbindeef ni ñu koy faral di waxee di doomu aadama war waay war nañu ñu dimbale ko bu nekkee ci ay jafe-jafe dañ ko war a dimbale dañoo war a am yëg-yëg waruñoo bàyyi ñaari mbir dafa am li jóge si ak li jóge si setan. Setan moom mooy jëfandikoo nit ñi ngir nax ñi te nit ñooñu bu ñu naxee dañ ñuy découragé loo dëgëral suñu xol ba nga xamante ni li nga xamante ni moom mooy lu dëggu li seytaane dafay fexe ba ñu soofantal loolu dañuy wax ne ah ñii dañuy naxe dootu ñu gisati bëgg-bëggu nit ñi dootu ñu gisati seen ay jafe-jafe surtout dootu ñu amati yërmande te bu ñu fàtte lenn ku fees del ak yërmande la yërmande yàlla moo tax ñu des fii si kaw suuf ba tey kon ñun itamit waruñoo bàyyi benn yoon seytaane dañuy puus jaar la ko si ay naxi ay nit ngir ñu bañ am yërmande ñaata yoon la ñuy tooñ yàlla ñaata yoon la ñuy wàcc fi nga xam ne moom la ñu yàlla teg ñaata yoon la ñuy li nga xam ne moom la ñu teewul yërmandek yàlla mosul wàcc su ñun moo tax ñuy dund ba tey insa dafa doon jàngale dafay jàngal ay taalibeem te ni ko ay taalibeem dañu war a roy si jàngaleem te damay def waxtaan wi saa su nekk ngir bëgg tàmbali séddoo ko ak sama ay mbokk taalibe ñi nga xam ne ay taalibe insa lañu waaye itamit séddoo ko ak sama ay mbokk ñi nga xamante ni sa dëgg-dëgg ay sénégalais lañu te bu ñu defee lu nu mel liñ siy indi liñ siy am ndam liñ siy am du ngir man du ngir taalibe yi waaye ngir réew mépp la ngir sénégal gépp insaan yi taalibe yi te ngeen baax ci seen diggante di layante biir tey baalante ñi leen yàlla baale ni ñu yàlla baale kon noonu lañu war a baalante suñu gisee ay nit ñu nekk ci jafe-jafe dañ leen wara a taxawu waruñu xool rekk li nga xamante ni mooy naxe yi waaye nañu xool li nga xamante ni sa dëgg-dëgg mooy li jóge ci yàlla te ñu war leen si jàppale ba tey si njàngaleem insa si injil ba tey si kolos mënu woon ni kon nag ndegam yàlla tànn na leen sellal leen sopp leen soloo leen boog yërmande laabiir woyof lewat ak muñ muñalante leen te di baalante su amee mbokk xarit dëkkandoo bu la def nanga ko baal mu ni di baalante ni leen borom bi yàlla baale woyof laa biir ñëlante laa biir mooy taxawu nit ñi dëgg-dëgg ci seen ay soxla balaa may jeexal waxtaan wi dinaa la ñaax si lii yow mi may seetaan tey nga jël benn waxtu benn simili ñaan yàlla mu may la xol xolu bëgg nit ñi ngay gis bés bu nekk yàlla may la xolu bëgg nit ñi nga xamante ni daanaka dafa mel ni ñoom la seytaane di jëfandikoo ngir ñu dër kiisal sa xol maanaam ngir yóbbu la si ngay fayu ngir yóbbu la si nga bañ def li yàlla digle mooy jàppale taxawu nit ñi am woyof laabiir lewat am itamit mbëggeel kon xëy na du ñàkk benn nit boo xamante ni mën na am ci sa biir kër la mën na am si koñ bi la ñi nga dëkkandool say dëkkandoo mën na am mu nekk kenn koo xamante ni yéen a bokk liggéey koo xamante ni xëy na sa dëgg-dëgg am nga jafe-jafe ngir jox ko place ci sa biir xol ngir bëgg ko ñaanal yàlla nañu ñaan yàlla bés bu nekk mu may ñu ñu bëgg nit ñi nga xamante ni sa dëgg-dëgg dañoo jafe bëgg ndaxte nit ki ay nit dong dafa jafe si ñun ngir ñu bëgg suñu ay moroomu nit ndax li ñuy def bés bu nekk yàlla daf ñuy xiirtal bés bu nekk ngir ñu mën a baal ñu nga xamante ni ñu ngi ñuy tooñ yàlla dafa bëgg def si ñun ay jikkoom maanaam jikko yàlla mooy baale mooy mën a muñ moo tax àddina bi nekk fii ba léegi ñun ñu nekk fii ba léegi ñaan nañu ñaan yàlla su dëgg-dëgg sama ñaan sax laay wax mooy yàlla may kenn ku nekk si ñun ñu mën a ñaanal baal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy tooñ mën leen a sopp waaye mën leen a bëgg mën a am yëg-yëg yëg-yëg si seen ay jafe-jafe waaye ñu mën leen a taxaw itamit si seen ay jafe-jafe yàlla li mu bëgg mooy jëfandikoo ñu ñun kenn ku nekk ci ñun ngir jàngal nit ñooñu boppam ngir wan nit ñooñu boppam ngir wan leen sa dëgg-dëgg moom mooy kan loolu mooy li xam moom la yàlla bëgg ngir ñun kon su ko yàlla bëggee yàlla mën na ko def loolu la bëgg li ñu war ñun mooy ñu nekk ci am taxawaayu nekk ay jumtukaay yoo xamante ni yàlla mën na jaare ci ñun ngir fësal mbëggeelam yërmandeem si nit ñépp balaa may jeexal wala fi may jeexale yonent yàlla daawuda dafa waxoon lii mu ni àdduna si ak li si biiram lépp yàlla moo ko moom aduna si ak li si biiram yépp yàlla moo ko kon man mi wala yow mi di ma xool li nga moom jàppal sa xel ni yàlla moo ko moom te daf la ko denk daf la ko denk ngir nga saytu ko te kon si biir loolu soo gisee mindeef nit doomu aadama ak ku mu mënti doon amul kaji ak seen xeet bu mu mënti doon làkk kàllaama bu mu mënti der yaram bu mu mënti am waaye diine ju mu mënti am itamit nit la te yàlla mu ngi wàccee mbëggeelam si nit ñépp yemale leen kon li la war mooy yow tamit nga defee ki noonu kon suñu gisee nit ku mel noonu ñu mën koo taxaw ñu mën koo jàppale kon loolu mooy li Daawuda waxoon su fekkee ndegam xam nañu ne li ñu yor yàllaa ko moom te gis beneen mbindeef boo xamante ni moom itamit yàllaa ko sàkk te mu soxla ci alal joju wala mu soxla ci ñun li nga xamanteni momu ñuko ko moko mom dañu wara jël ci yefu yalla jox ko ko ngir taxaw ko <coughs> kon ngir hotel xotal kaino ngir baña xeyna guddal sax lay wax sama ñaan ak sama yene si kenn ku nekk ci ñun mooy ñu màgg ci xam yàlla ñu màgg wessu na si deggal yalla dañ suñu mag dafa wara a lool manam lima bëgg wax rek ñu bayyi xel bu baax kaddu yi nga xamanteni insa waxon naka mu ni sopp leen seeni non di defal lu baax nañu sopp suñuy non te di leen defal lu baax waaye mu ni woon itamit na nga bëgg sa morom ni nga bëggee sa bopp biñ ko laajee ñaari ndigal yi gën a mu ni ñaar yi la na nga bëgg yàlla sa borom ak sa xel bépp sa xol bépp ak sa kàttan bépp mu tegaat ci beneen na nga bëgg sa morom ni nga bëggee sa bopp kon soo gisee nit ku nekk ay jafe-jafe niñ koy waxee nekkal ci palaasam nga xalaat ni bu doon yow la te nga am xolu yërmande laabee ko biir kon loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon séddoo ak yéen ñu bàyyi xel ci baat yooyu te ñu xam ni suñu diine wala suñu xam yàlla li fekk mënul weesu suñuy làmmiñ li fekk àggul ci suñu ay jëf xamuñu yàlla dañu yaakaar ni xam nañ ko suñu xamee yàlla xam lan la bëgg ngir kenn ku nekk ci ñun mooy ñu defalante lu baax ñu bëggante ñu bëgg sax ñi nga xamante ni suñu ay noonu lañu te di leen defal lu baax kon mbokk yi amoon naa mbég mu rëy séddoo ak yéen tey jii li nga xamante ni mooy waxtaan wi maanaam ñu baax si ñëpp baax si ñëpp ni yàlla baaxee si ñun ñëpp si xeet yëpp si àdduna bi yëpp ñëpp ñoo tolloo ay chance si yàlla kon maa ngi sant yàlla bu baax ci li nga xamante ni may na ma ma séddoowaat ak yéen waxtaan wi si waxtaan yi xamante ni dañ koy def eh, ak eh, suñuy émission eh, jublu si suñuy émission yaakaar ju sax suñu yaakaar bi mat ak suñu centre yaakaar ju sax liñ si fàttali rek mooy kante ni dañ si jublu mooy gën a xiirtal nit ñi ndaw ñi taalibe yi ak mbokk sénégalais yi compatriotes ni ñu koy waxee ñu mën a bàyyiwaat suñu xel dellu si waat si yàlla ni ñu koy faral di waxee ndaxte xam yàlla dëgg la mbir mu am solo la waaye wóolu yàlla te déggal yàlla itamit beneen mbir la xeex la bés bu nekk ni ñu koy faral di waxee xeex la ngir xeex si suñu biir xol xeex si suñu jëmm la xeex si suñu jikko la xeex si suñu xalaat la xeex si suñu ay jikko bés bu nekk ndaxte bés bu nekk noon wi dañu tegal ay gàllankoor ngir ñu mën a bañ a déggal yàlla waaye dañoo war a xeex bés bu nekk ngir déggal yàlla te loolu moo tax suñu ay émission jóg ngir xiirtal leen fàttali leen fàttali leen waat li nga xamante ni la yàlla digle li nga xamante ni moom la yàlla jàngale kon su fekkente ni am ngeen ay laaj mën ngeen ñu bind wala ngeen wooñu si suñu numéro bi nga xamante ni mu ngi affiché wu si écran bi te bu ko defee dinañu jël ak yéen rendez-vous su leen neexee wala mën nañu tontu seeni ay ay laaj mën nañu toog gën a waxtaan gën a xóotal su fekkee ne itamit am na ay points yi nga xamante ne bëgg nga ko leerlu bëgg nga mu leer si yow nga nekk taalibe insa wala nga bañ a nekk taalibe insa mën nga ñu bind mën nga ñu laaj mën nga ñu woo te bu soobee yàlla dinañu jël li nga xamante ni moom la insa jàngale woon ngir indi ay tontu. amuñu ay tontu ñun waaye insa jàngale na yàlla wax na jaare si yonent yi te loolu la ñuy jëfandikoo ngir indi ay tontu si seeni laaj seen soppe seen xarit seen mbokk malik diop moo fi jaaroon di séddoo ak yéen waxtaan wi jërë ngeen yëf na leen yàlla barkeel barkeel réew mi di sénégal def fi jàmm defal ñu ñun ñëpp jàmm te jàmm jooju sax ñun ñëpp ñu bokk ko jërë ngeen jëf ba beneen yoon